bien que président Ablaye Wade dafa supprimer conseil de la république mais dafa wëlbatiku de la république magistrat yi ku mel ne euh, Ousmane Camara Amadou Louis Diène même Kéba Mbaye ils ont été président honoraire de la cour suprême donc loolu mooy honoria maintenant est-ce que am na ay ay avantage normalement honoria dañ koy def pour reconnaître ses mérites mais ça peut être accompagné de certains avantages tels que ay indemnité de représentation bu fekkee ne da nga daan am garde corps ñu bàyyee la ko et cetera ça c'est des avantages yoo xam ne c'est la république moo koy jox ñi nga xam ne dañ leen servir pendant des années et des années je crois que donc c'est pas la première fois yàgg na depuis presque 2000 dans tous les pays xool France par exemple bu fekkee ne nekkoon nga président la République boo fa jógee automatiquement tu deviens membre de droit du conseil constitutionnel. donc yooyu ay tradition la de la République c' de la euh, euh, na pourtant bañ a jaaxal bu ñu gisee ne euh, dañu génnee décret bi communiqué génn ci fa nga xam ne mooy communication bu présidence de la République alors que décret bi dafa am signature bu président de la République yamuñu ci weddi ko mais dafa am keneen ku génn koo xam ne mi ngi ci cellule de communication jiite fi nga xam ne moom mooy soleil moom wax ne euh, décret bi naam am na euh, muy rek euh, numéro décret bi am na mais liñ ci wax ci avantage amul est-ce que du loolu moo jiixi jaaxe xelu askan wi aussi loolu loolu warul indi jiixi jaax parce que nit ñi je crois dañuy toppatoo ay ay ay ay détails yoo xam ne peut-être que nit ki la kenn mësul contester par exemple honoria bu premier président cour suprême même les généraux yi nga xam ne ay militaire lañ bu ñu nekkee général bu ñu demee retraite dañuy continuer di am ay avantage mun nañ ko tuddee honorariat peut-être que xëy na ki nga xam ne moom lañ ko jagleel peut-être que c'est une femme politique xëy na moo tax mu indi coow contexte bi nga xam ne contexte bi am na ñoo xam ne dañuy bénéficier wu honorariat ca ñu def politique muy ay magistrat muy ay ancien président de la République muy ay militaire coow du am mais je crois que man li ma gis ci décret yi je crois gis naa ñetti décret yu génn am na benn décret bu njëkk génn. ban lañ ci gëm maître. bon man ma man bi ma man man man en man je suis un république. Mhm. je de la république. man li may gëm mooy li officiel. décret boo xam ne génn na ñu yóbbu ko journal officiel ñi nga xam ne ñoo ci réew daal di ne décret bi moo baax man ñoo lay gëm. bu njëkk bi moom la yóbbu journal officiel amul ah, benn légitimité kenn falu ko mhm. muy wax ay wax ma koy gëm ma ñi nga xam ne ñoom la askan wi jox seen baat mhm. fal leen mhm. ñu occupé yenn fonction officielle ñu génn décret bi ci ay journaux yoo xam ne ñëpp xam nañ ne journal officiel la bu ñu la nommé foofu lañ koy def pour sa nomination ñu ñu reconnaître ko. man hmm. loolu rek laa mën alors journal bi nga xam ne moom la ñu génnee décret bi nga xam ne moo officiel mooy décret bi am avantage yi 4 millions 500 mille francs de salaire par mois 500 litres euh, li nga xam ne mooy carburant am oto bu am macaron ak garde rapproché kon boobu décret mooy bi nga xam ne moo jaar yoon. xaw ma ci ban décret la en tout cas am na décret boo xam ne cellule de communication bu président de la République nee nañ décret boobu baaxul cellule boobu jusqu'à preuve du li ñu wax moom lay gëm. am na benn décret boo xam ne génne nañ ko mu génn journal officiel décret boobu jusqu'à preuve du contraire moom lay gëm est-ce que accordé na ay avantage est-ce que accordé wul ay avantage man loolu franchement c'est pas mon problème mon problème mooy décret la accordé na statut honoria koo xam ne yàgg nañ ko defal yeneen ñi nit xaw ma ndax am na indemnité xam même bu amee ay indemnité man ça ne me dérange pas parce que man du ma fi nekk di coow naan kii am na un million kii am na kii am na trois millions man c'est pas mon problème ku nekk na dàq sa wërsëg. alors alors man oui oui man lu may laaj euh, euh, maître mooy euh, fi Fatou Abdou rek daanale li jaaxal xëy na askan wi ñu ci bari bari ñu yiy yàbbi ci mbir mi mooy naam wax nga ko avantage bi président de la république sax on peut comprendre ay magistrats on peut comprendre mais bu ñu gisee institution yu mel ni ay conseil économique social et environnemental déjà ñu ëpp ci askan wi dañuy wax ne ay institution budgétivore li ñuy lekk ci xaalis te seenu njariñ bariwul loolu loolu la loolu la ñu gis alors euh, jël xaalis bi ñu toll bu dee décret bi am na am amul euh, lu toll ci 4 millions 500 di ko jox euh, ki jiite woon conseil économique social et environnemental ak Fatou Abdou li mu wax ci contexte bi ñu nekk est-ce que tamit nag du doon lu doy waar. d'abord bi ñu nekk. c'est pas un contexte boo xam ne dafay suspendre les valeurs de la république ou bien la tradition républicaine nekkoon ci contexte boo xam ne l'État ne fonctionne plus l'État fonctionne normalement ensuite institution institution la le Sénégal compte comme institution le président de la République l'Assemblée nationale le Haut Conseil des collectivités territoriales le Conseil économique et social et les cours et tribunaux ñoo yem égale dignité je ne peux pas comprendre nga ne telle institution am na droit à temps beneen institution amul droit à temps quand le président de la République en tant que institution première institution de ce pays a droit à des avantages

que on la tradition et mais dañu nekk ci crise sanitaire boo xam ne dafa laal suñu économie bu baax et au moment où des sénégalais ñoom ñooy cotiser pour nga xamante ni euh, conséquences yi mën a tuggee tukkee ci pandémie bi ñu ñu mën ko xëy na wàññi bu baax parce que duñu ko mën defar à 100 pour cent euh, ci moment boobu la ñu choisir pour benn nit ñu jël alal boobu yëpp jox ko ko. c'est frustrant voire même ah, inadmissible. na nag 4 millions 500 moom. par ah, ah, mois man mii nga xamante ne xaw ma 4 millions la xaw ma mais je crois que c'est comme ça que fonctionne la république. république dafa am nu muy fonctionner ñi ma la wax ñi ma la wax ne bénéficié wu nañ ci honoria muy ancien magistrat n'est-ce pas di ancien militaire di ancien président de caution. le président Famara mais yooyu est-ce que ça dañ ko war la même procédure. le mhm. président Famara Ibrahima Sagna. Mhm. était président du conseil économique et social. il bénéficiait de l'honoria c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui parce que euh, la république fonctionne boo nit ñaa ngi liggéey bu weer dee dañ leen di fay conseil des ministres mu ngi réunir di nommer ay nit di wàccee ay nit pourquoi pas kenn koo xam ne war na bénéficier d'honoria ñu ne duñ ko ko bénéficier parce que simplement on vit une une une pandémie je crois que c'est pas une raison je dis que la république continue continue à fonctionner quelles que soient les circonstances donc c'est pas un bon argument de dire que oui dañu nekk ci kii waruñu élever nit à à la à l'honoria etc je crois que ça c'est des détails kooku waxu politicien la bàyyi leen yooyu. dañu wax waxu république mais mais naka ngay jàngatee naka ngay jàngatee waxu sénégalais yi wax ne ay euh, institutions yu mel ne ay conseil économique social environnemental wala au au conseil des collectivités territoriales c'est-à-dire sénégalais yi problème boobu la am. waaw euh, du yi. am na yenn sénégalais euh, déglu rek. waaw ñenn ñi ah, bokk waaw loolu bu leen neexee. ñëw rax ci dool yi nag ak li leen jox nii. bu leen neexee ñu wax ko je crois que nit ki nga xam ne moo yore réew di ko doxal mu nekk une république nga xam ne république ci ay institution xam nga benn nit benn benn baaraam du tàccu benn loxo du tàccu nit ki nga xam ne mooy président la république dafa soxla reposer wu ci ay institution pour doxal réew mi wax naa ko léegi ne réew mi ci juróomi institution bànqaas la tëkku muy assemblée nationale mënoo doxal réew ci amoo député mënoo doxal réew ci amul ñu lay conseil yoo xam ne ay institution lañ ñi nga xam ne dañuy réfléchir ci wàllu koom-koom ci wàllu social mu mel ni conseil économique social président de la république daf koy soxla dañ koy defal ay rapport bu ngeen ko xamee noon la bu ngeen ko xamul noonu la mm-hmm. au conseil des collectivités territoriales dañuy xelal président ci décentralisation ci aménagement du territoire il faut gis nga bu fi amul Sénat am fi bu fi nekkoon président de il faut am ko bu fekkee nag am na ay yoo xam ne xamuñ seen njëriñ xamuñ pour lan la ñu koy wax kooku seen wax la. alors su ma yoon bu la neex xalaat bu la neexee nga xalaat ne institution yooyu baaxul. mais ki nga xam ne moom la ñuy xalaat réew mi nga xam ne dafay dox nga xam ne dans tous les pays du monde am na sax ay fédération yoo xam ne différentes assemblées nationales ñooy daje am na assemblée nationale CEDEAO. bu la neexee nga ne député waru fi am bu la neexee nga ne conseil économique social am fi am na surtout dans tous les pays africains am na. au conseil pareil. maître maa ngi la doon wax tout à l'heure yéen da ngeen xalaat. waxu procédure maa ngi la doon wax tout à l'heure waxu procédure ñenn ñi jàpp ne que c'est illégal ba ñu jël dogal même que ñoom bu jaree dinañu dem ba kanamu cour suprême lan nañ fa mën jëlee. waaw man képp koo xam ne man nit yoon la képp koo xam ne citoyen nga nga gis loo naqari ci réew mi nga ne da ngay dem justice nga joytu ko fa ànd na ak yow loolu mooy démocratie loolu mooy citoyen un citoyen mu gisee loo xam ne d'accord ci ci réew dafay dem justice mooy jooytu ko fa mais nag lu légal ak lu égal du citoyen boo koy wax lu légal ak lu légalul justice moo koy wax comme ñoom xalaat nañ ne légalu nañ dem justice bu justice nee nag c'est illégal ñëpp dañ ci war a d'accord ne c'est illégal bu ne légal na aussi ñëpp war a d'accord ne légal la. alors décret bi 2020 964 moom la ñu moom mooy décret bu baax bi te amul avantage loolu ki ko xamle moom mooy Yakham Mbaye daanaka fan yii yëpp ñu ngi koy wax ci ëttu taskatu xibaar yi li jaaxal nit ñi mooy génnagul décret boobu muy wax ci journal officiel est-ce que dafa war a am délai. pour génn journal officiel wala jarul délai pour que décret bi mën a génn ci journal officiel. ba xam nga décret moom mooy sañ-sañ boo xam ne président de la république moo ko jëlal dogal ko boppam ci domaine am li ñuy wax domaine réglementaire xam nga dafa am décret am loi loi dafa am matière yoo xam ne président dara bi amul ci benn sañ-sañ assemblée nationale rek moo ci am sañ-sañ dañ koy wotee loi la dañ koy promulguer mais président moo koy promulguer décret mooy sañ-sañ boo xam ne président dara bi moo am sañ-sañ dogal ko décret mun na concerner nit yow Fatou Abdoulaye Mm-hmm. benn nit kooku la ñuy wax acte réglementaire individuel kooku même buñ ko euh, publier wul journal officiel dañ la ko wala notifier wax la ko buñ ko buñ la ko waxee rek notifier rek ça devient exécutoire mais bu fekkee ne décret boo xam ne dogal la boo xam ne askan wi yëpp lay lay lay lay lay concerné dañ koy publier au journal officiel. Mm-hmm. bu boobaa nag ku mu neex nga attaqué ko bu fekkee ne d'accord ci dem. cour suprême dafa am délai wala amul délai. Euh, buñ ko publier buñ ko jëlee amul délai pour publier ko. mais buñ ko publier am na délai de deux mois yoo xam ne ku ko bëgg attaqué dina ko attaqué. Mhm. alors dañu gis ne conseil économique social et environnemental seen article 531 euh, si jëm 52 52 dañu ci wax ci biir article bi que ne lépp loo xam ne dañu ko bëgg a jox comme ni ñu ko waxee honorariat ci président au conseil collectivité maanaam conseil économique social et environnemental dafa war a am li nga xam ne moom mooy avalu assemblée plénière bi et yaa ngi wax ne c'est le président la république am na sañ-sañu jël décret sans mu am avis institution bi te loolu institut constitutionnaliste constitutionnaliste yi ñu bari dañu ci werante lan lañ ci mën a jàpp concrètement xam nga euh, gis nga honoria li ma la ko waxee soxlu sax texte principe bi mooy c'est une tradition républicaine c'est des, des valeurs républicaines qu'on met en exergue bu fekkee nag ne euh, conseil économique et social décret président de la République moo sut ci la hiérarchie des normes conseil économique et social seen règlement intérieur c'est-à-dire décret boo xam ne président moo ko jël moo ëpp décision boo xam ne. même bu fekkee moom règlement intérieur am ak yëpp loolu moom moo koy fete kaw. ah mais c'est-à-dire dañu wax ci décret bi ne conseil économique et social seen règlement intérieur prévoir na ñoom ñu jël sañ-sañ nommer seen ancien président président honoré mais bu boobaa président de la République moo koy wéyal. c'est-à-dire que ñoom dañuy exprimer la volonté. président de la République daal di ko valider. donc président bu ko neexee mu jël ko. <laughs> d' accord su ko neexee mu validé ko sans pour autant mu jaar foofu loolu nga bëgg a wax. bu ko neexee mu jël ko Mouhamed. alors comme comme mooy ndeyum bi léegi kay. alors alors yow boo jëlee sax boobu moo koy wéyal boo ko neexee mu jël ko moom directement. mais maître li ma jaaxal yow li nga fi tàmbali yëpp wax ci avantage yi nekk ci euh, honoraria euh, yaa xam mbay ne euh, décret bi nga xam te moom moo officiel te moo baax amul benn avantage loolu est ce que amul contradiction waaw euh, euh, je crois lire nag bi ma liiree décret bi. décret bi nga xam ne moom la ñu wax ne mooy officiel. je crois que décret boobu moo reposé wu ci li nga xam ne mooy fondement honoria maa ngi la koy wax léegi fondement honoria c'est un fondement moral c'est-à-dire que dañuy reconnaître nit ki service yi nga xam ne moom la rendre état bi ñu ne ko dem nga retraite mais dañ lay bàyyee titre bi c'est-à-dire président honoraire nga dootoo exercer fonction bi mais titre bi da nga koy am ça veut dire que sur le plan protocolaire bu fekkee ne euh, république bi mu ngi def ay manifestation ak yooyu di nga ci am rang di nga mais maintenant nag yenn avantage pécuniaires yi kooku dafay neex président de la république mu boolee ko ci mais c'est pas quelque chose boo xam ne c'est vraiment obligatoire donc euh, euh, loolu mu jël loolu décret boobu ni ma ko liiree franchement c'est c'est c'est l'honoria c'est le fondement c'est un fondement moral maanaam cër gi rek lan lay jox cër gi waaw cër gi waaw parce que dem nañ sax ba bu fekkee ne yow da nga retraité par exemple retraité magistrat retraité nekkoon président cour suprême ñu jox la honoraire ba pare mu am ci indemnité boo xam ne moo ëpp sa retraite da ngay renoncer sa retraite pour mën a percevoir indemnité ba nga xam ne moom la la honoré a <laughs> jox. kon am naa alors le faux le faux xam nga xam nga gis nga république gis nga gis nga nit ñi wax nii yëpp <laughs> dafa lay wax Mohamed gis nga nit ñi di wax nii yëpp. dañu war a war a ñëw ñi ñuy wax ñu bëri. Euh. ñu ngi woon ci réew bi ñu ngi woon ci ay gouvernement. am na ci nekkoon premier ministre am na ci nekkoon ay ministre. bu Abdoul Mbaye. Euh, am na bëri na Abdoul Mbaye am na ci Idrissa Seck. am na euh, comment dirais-je Loum et tout ça dama la bëgg wax ne la ñi fi wax yëpp. ci réew mi ñu ci bëri nañ fi ay fonctions en tant que ministre ou premier ministre dans la république du Sénégal liñ fiy wax defuñ ko fi woon. mais est-ce que le moment leen jaaxal. mais maître lañ daan jaaxal. xadi euh, nga baal ma rek. Euh, est-ce que n'est pas mal choisi. loolu répondre ko. c'est mal choisi dama ne. parce que tamit contexte bu ñu nekk. mais contexte booy mais ñu ngi àlaxira ah ah déedéet <laughs> ñu ngi dund. dem nañ ba léegi ñu ngi dund sax ak ak ak ak feebar bi et tout ça ñu ngi ñaan yàlla ñu koy gën a allégé ñu ñuy ñuy dund di xaar feebar feebar bi jóge fii mais c'est pas parce que la il y a la pandémie aujourd'hui qu'on suspend la tradition républicaine les valeurs républicaines yu bari chaque euh, mercredi chaque mercredi xadi. d'accord ñu ngi def conseil des ministres. Uh-huh. ñu ngi nommé ay nit. ñu ngi wàccee ay nit. Mm. da nga bëggoon wax ne kon wàcce kenn waru fi wàccee nit parce que dañu nekk ci pandémie Covid 19. peut-être que anam bi ko euh, chef de l'État di defee moom moo tax nit ñi jàpp ni xëy na abus de pouvoir lay def parce que dafay rappeler un peu bi mu xëyee rek ne jabaru ambassadeur yi daf leen di daggal salaire on a l'impression que moom dafay day def ingérence un peu ci domaine yu bari. mais président moo géré doomaine yëpp. séparation des pouvoirs séparation des pouvoirs fan nga koy dugal séparation des pouvoirs mais séparation des pouvoirs c'est dans le fonctionnement des institutions mais institutions yëpp président moo loolu il faut que yéen xam nga nous sommes dans un système république euh, présidentiel ah, maintenant dans leur fonctionnement président de la République amul droit di dugg ci fonctionnement de la justice mais organisation de la justice moom moo ko yore amul droit dugg ci dans le fonctionnement de l' assemblée nationale mais organisation assemblée nationale moo ko yore moo joxe ay projet de loi et tout ça pour ñu wote ko il faut nit ñi xam ko ne fait pas d'ingérence au contraire il est là pour ça alors premier ministre yi yaa ngi koy wax sànq Khady wax na la ko CRD Abdoul mbay ci la bokk te porté na le combat yóbbu ko ci cour suprême pour ñu annuler recours bi mais bu ñu ci gisee faux bi ñu ciy dégg la signature du président de la république ci benn décret boo xam ne ñoom ñi bokk ci cellule de communication bu présidence dañu ko weddi quand il y a est-ce que procureur warul autosaisir ndax signature koo xamante ne daanaka ni nga ko waxee sànq lépp moo ko yilif ñu dem soppar ñu ko dem génnee ko ci réseaux sociaux yi ah, xaw ma président xaw ma procureur autosaisir na wala wala autosaisir wul mais effectivement bu demee ba un décret génn cellule de communication de la présidence ne c'est un faux war nañu ubbi une enquête pour xool ah au moins contre x pour xam kan moo def faux bi mhm. parce que on a falsifié les sceaux de l'État parce que la la signature du président xam nga tey avec eh, les techniques la mhm. mun nga jël benn décret conserver signature bi mais contenu bi ñu modifié ko. waaw en tout cas daal foofu moom signature Macky la ci nekk. président Macky Sall waaw en plus envoyé mu concerné mën boo xam ne décret bu bu bu normal. Uh-huh. xam nga mais xam ne c'était destiné à autre chose. ñu dindi destinataires yi bénéficiaires yi et tout ça bàyyi ci montant bi changé tour bi ne c'est destiné à Mohamed extra bàyyi fi signature bi. Uh-huh. ñun ñun ay avocat lañ. Uh-huh. xam faux intellectuel am na faux matériel am na faux dafa am. Mm-hmm. mais loolu nag aussi bu amee il faut ñu continuer enquête bi pour guider askan wi essayer rechercher seet ñi nga xam dañoo def faux bi parce que loolu wóoru maître est-ce document boobu c'est possible que ñu envoyé ko ci boîte mail agent yi mu concerné yëpp jóge ci ministère des finances waaw ku dem bay falsifié faux boo xam ne présidence la jóge décret président <laughs> mën nga defaat lenn <laughs> alors Abdoul Mbaye sànq yaa ngi koy wax mais dafa wax ci biir communiqué bi nga xam ne génne nañu ko que dañu toll peut-être ci li nga xam ne mooy paccoo ndax wax nga ko sànq décret bi bu fekkee politique lañ ko jox coow loolu lay indi est-ce que loolu mu wax aussi mënul am raison ci jamono ji nga xamante ne jox nañu Aminata Tall mu war a am yooyu. avantage waaw moom de toute façon xam nga nekkoon na fi premier ministre ba mu fi nekkee ak léegi lii am ci léegi doon na am foofu xam nga génne nañ fi benn décret boo xam ne moo ko contresigné nee na dañ ko nax waaw c'est dans l'affaire Petrotim. ah, ah na euh, am na ay wax yoo xam ne aussi waxu politicien la nekkuñ ci affaire u pàccoo yooyu nous sommes dans une dafa am nu muy fonctionner. la aussi. waaw dama li mu bénéficié wu tey. Mhm. am na ay magistrats yu ci bénéficié wu ca kenn waxu ko. des professeurs am na ay militaires yu ci bénéficié wu ca mhm. kenn waxu ko parce que dañuy joxoñ politiciens mais politiciens ak ñëpp a yem. politiciens yeeg journalistes yeeg li ñuy wax société civile ñëpp benn lañ c'est la même chose. politiciens yi bu yóbboo ñu yëkkati seen seen bopp ca kaw ñooy doxal réew mi toujours ñu dem élection ñoo xam ne dañu ne seen loxo set nañ société civile lañ dañuy ñëw ñu am sax zéro virgule un pour cent politiciens yi la ñuy fal. ñooy doxal réew mi ca ñooy continuer doxal réew mi ñoom la askan yaakaar. Mm-hmm. oui. je pense que au-delà du fait que peut-être politicienne la il y a le fait que ñoom ñu. mais ak le fait que ñu génn def démenti ñu nekk que boobu décret boobu faux la alors que bu ñu nee décret 965 euh, bi moom moo baax euh, boobu ñëpp xam nañ ni am na parce que moom moo créé condition wu euh, bi ñu teg pour fonds force Covid 19 comité bi ñu ne bu 966 bi boobu également ñëpp xam nañ ni am na parce que moom moo fi teg François Ndiaye pour mu jiite ko lu gënoon yomb est-ce que ça aurait pas été ñu ne alkaat bi sàngam moom moo ci nekk au lieu de juste dire c'est un faux. non bu dee faux la naan faux la. parce que bu 65 amee 66 am mètre normalement 64 existe damay rappeler histoire parce que Sénégal dañu gaaw a fàtte. gis nga Aminata Tall bii nga xam ne tey dañ koy yëkkati tey daal di ne président honoraire conseil économique et social la. ñu bugg ko jàkkee jigéen boo xam ne day politique liñ ko jox mérité wul damay rappeler ne Aminata Tall au moins mas nañ ko fi nommé ministre mu démissionné. te ñi koy critiquer ñu bëri ñu ngi fi bu ñu leen demee woon ministre duñ démissionné au moins kooku reconnaître la dama bëgg wax ne aussi jigéen bu am valeur la boo xam ne dafa def combat bi agsi fi mu agsi mais maintenant am na ñoo xam ne ñu koy critiquer defuñu combat yi mais wax sur la forme mais sur le fond non sur le fond si da ngeen ko wax ne milité wu ko non non non la am ñeneen ñu am loolu ngeen ngeen ngeen ngeen oui oui mais la personne la nit ñi dañu am ay jaar-jaar. mais maître la maître bu ngeen di critiquer nit ñi aussi na ngeen fàttaliku seen jaar-jaar. mais jaar-jaar on ne critique pas et il ne s'agit pas de la personne non. voilà c'est c'est il s'agit de quoi. c'est surtout sur le fond. koppar bi décret bi faux. mais koppar bi koppar bi askan bi ko liggéey. mais la personne d'Aminata Tall je suis désolé mais n'est pas visée. ah d'accord là on est d'accord. voilà voilà ñu leeral ko. ah justement askan wi ko liggéey ñu dajale jox benn nit. c'est ça le problème une question dajaluñu ko benn nit. ay fonctionnaires ak fi nii di fay ko ay millions. mais oui à cause de risque bi ñuy am ak seen jaar-jaar. jamono jooju ak importance bi nga oh, xam ne moo tax ñu occupé. fonction yooyu ak seen njàng ak seen xam-xam. jamono jooju maître ah. jamono jooju maître ay jàngalekat ñi ngi leen dajale ci ay bus ak condition yoo xam ne kenn mënu la ko wax ay élèves yoo xam ne ay abri provisoire la ñuy jàngee ay jàngalekat yu bàyyi seen ay famille fii nii di dem ba ci fongole mi di jàngale. jamono jooju nga xamante ne am na beneen société boo xam ne mi ngi ci biir société sénégalaise boo xam ne bu añee du reer wala bu reere du ndekki. ça aussi il faut ñaan leen jàmm non loolu <laughs> du Sénégal ñaan leen ñaan leen réew maa ngi dox réew maa ngi réew maa ngi dox am na jàmm bàyyi leen di leen di wax jàmm bàyyi di naaj wax jàmm am na ay nit ñi bu amee ay instituteurs am na ay professeurs am na ñoo xam ne ils sont am na ñoo xam ne ce am na ñoo xam ne ce sont des titulaires de chaire mënuñ bokk lu ñuy fay. sénégalais bu mënti doon sénégalais la. journaliste yi la même chose. waaw dafa am ay quand ay échelons. yàlla moo ñu bind gis nga suñ juróomi baaraam yi. alors maître foofu li ma li ma la bëgg a wax mooy euh, Macky Sall le président Macky Sall moo jiite sénégalais yépp avantage yooyu boo waxee ay mérite Aminata Tall am na ñeen ñu am mérite ci domaine ba ñu nekk c'est pas parce que nit ki yegg na ci benn sommet bi que domaine boobu mu nekk daf ci daf ci am mérite boo xamante ne jàngalekat bi amu ko mérite boo xamante ne ka nga xam ne ma nga ci village boo xam ne dafay dem taxani wala amul li nga xam ne mooy semence amu ko jamono ji nga ne ngi wax covid 19 baykat yi di laajte seen semence distribution alimentaire loolu il faut penser à cela domaine boo fi gis ñu ngi koy toppatoo actuellement ñu ngi préparer campagne agricole ba balaa nawet bi jiw danañ jël ay mesures yoo xam ne dañuy yombal baykat yi ñu dollu ci seen tool yombal leen jiw bi yombal leen machine agricole yi loolu mooy liggéey ministère de l'agriculture président di ko di ko waaw dañuy fopp day am jàmbat yéen a ngi ni di jàmb ñëppay jàmbat mais rien n'est jamais parfait nous sommes des humains mmh. yàlla bindul sax yi fi mu yem

une république quand même qui se respecte comme le Sénégal est-ce que tey. je crois que le Sénégal se respecte. oui mais est-ce que mën nañu nangu. mën nañu nangu ñuy dégg ay décret foo décret signature président de la République est-ce que quand même euh, d'une part amul faille ci côté cellule communication président. mais par rapport à ça mais mais écoute xam nga non aussi Mohamed. ah mais c'est le monde qui est ainsi hmm. boo demee ci dëkk yi ñu gën a développé muy États-Unis muy ay Chine. am na sax ay président yoo xam ne ñu ngi nekk en exercice ñu leen di convoqué bërki Dembo Ndiaye lañ ko wookee Israël le premier ministre di ko ate fi pays africain euh, fale nu mu tëddi au euh, Congo directeur de cabinet a été arrêté Faso le ministre des finances a été arrêté euh, aujourd'hui le président américain mu ngi jiñ Chine xam nga ay trahison extra yooyu ay faux kooku ci nit ñi la faussaire ci ay nit lay doon ni nga xam ne noonu la affaire bi développé c'est pas parce que le Sénégal est une est une république que du am ñoo xam ne il passe euh, par les mailles du filet pour commettre des fautes tout ça yooyu day am looloo tax na am kooku y a pas de problème le naa ne n'est pas responsable tu n'es pas responsable je ne suis pas responsable c'est pourquoi il y a la justice on ne peut pas juger la République à partir de ça alors euh, Khady Sanko dugg na ci transition bi muy la reprise des cours le 2 juin déjà li ñu gis fi nga xam ne mooy rond point Liberté cinq moom doy na waar mais également yeneen point yi nga xamante ne euh, pëccëxoo euh, c'est une foule débordante lañu fa lañu fa gis ah buuxante boo xamante ne ci période bi ñuy waxee que ne sénégalais yi nañu respecter la distanciation physique mais également nañu fexe ba lépp loo xamante ne matuwaay la ñu jël ko loolu ban lecture ban jàngat nga ci am jàngat bi ma ci am mooy Sénégal nag dañoo xaw a doy waar. Ah xaw a doy waar xam nga fi mu nekk nii feebar bi ñëpp xam nañ waxuñ lu koy faj mais lu koy aar xam nañ ne puccu xoo baaxu ci xam ne da nga war a set. xam nañ da nga war a respecter distance distanciation distance sociale bi et tout ça mais xam ne nañ sax dañ ngay sol masque mais am na ñoo xam ne wax nañ ba tàyyi ba tàyyi dañ leen fa convoqué ko def kooku dañ leen fa convoqué waaw même bu ñu la convoqué tey tey yow da nga ma convoqué fii comme comme comme invité mais ñëwuma dugg ci seen biir ñu waxu leen distance. c'est différent bu ñu ko defatuwoon man dinaa ko exiger. dinaa ne pour ma sécurité xam nga nit ñi aussi. dafa am ay maître dafa mel ne yow. Fatou dafa que ne euh, euh, jotooloo euh, ci jotaguloo ci bokk ndaxte dañ leen convoqué heure tel ne leen nombre de bus tel moom mooy départ près de vingt mille enseignants ñii ñooy jóge Dakar ñii ñooy dem ah. même le ministère a reconnu am na ay dysfonctionnement yu mu war a corriger moo tax ñu laaj la ci loolu lay wax am na ay dysfonctionnement parce que aujourd'hui bu ñu leen convoqué ñoom ñëpp xam nga enseignant jàng na dafay jàngal ay nit am na yoo xam ne ñoo ko war a bañal seen bopp parce que feebar bi tey li koy faj bu nekk dafa war a jël sa responsabilité am na loo xam ne boo ko defee dangay ngay exposé wu yow yaa ko war a bañ. ñan bañ ko enseignant yi. mais enseignant yi mën nañ ko bañ. ok su ñëwee su regroupé. Hmm. mais nañ wax ne eh monsieur le ministre. yow système bi nga jël. Hmm. dafay tax ñun ñu am regroupement bi waxuñu ne dañuy grève waxuñu ne dañuy gedd mais dañuy banque suñu loxo ba nga jël disposition yoo xam ne dina assurer suñu sécurité. ñaari fan a ngi nii ñuy alerter ministre bi barki démb bi il leur avait promis que dysfonctionnement yi mu nemmeeku woon foofu le lendemain du am te li ñu remarqué mooy que dafa amaat. ah xaw ma am na xaw ma amaat. ñoom mënuñu banque seen loxo parce que seen gagne-pain bu ñu leen ne dañ lay jëlee bërëb sàngam yóbbu la fële ils sont obligés d'y aller. li ngeen di wax yëguma ko. mais dama mettre l'accent sur quelque chose il y a une responsabilité de l'État il a des responsabilités collectives mais il y a surtout des responsabilités individuelles nit ñi dañu war a xam ne feebar bi non seulement boo jëlul Euh, say euh, say disposition ba mu wàll la yow mun nga ko wàll. mais maître la mooy sa position yow euh, ci reprise bi est-ce que d'accord nga Sénégal ak contexte bi mu toll pandémie bi saa ñu xëyee chiffres yi di gën di yokk ci par rapport ak mbas mi est-ce que d'accord nga yow en tant que voilà sénégalais ci ñu reprendre cours yi le 2 juin. waaw xam nga man aussi damay prudent man bu fekkee ne information yi nga xam yi nga am ci lay sukkandiku. en tant que Ousmane Seye un citoyen lambda bu ñu ma mën woon demal ubbi école yi léegi duma ko def. <laughs> c'est <laughs> ma ko def. damay wax damay wax suma diggante ak yàlla dëgg laay wax. information yi ma am suma niveau d'information. Mm-hmm. ak sama xam-xam fi mu toll ci feebar bi. suñu ma a woon suba ubbil école yi man duma jël responsabilité def ko. mais dama nekk ci réew yoo xam ne dafa am ay njiit. yoo xam ne am nañ information yoo xam ne xaw ma ko. am nañ ay moyen li ma leen wax yóbbu nañ mi ci benn télévision ma wax leen ko avant lii ma ne leen bu fekkee dañu ubbi le deux nañ jël toutes les dispositions d'hygiène et de sécurité pour que élèves yi ak enseignants yi nekk en sécurité dem naa ba leen ne même le transport des élèves dañ ko war a assurer mhm. parce que mënuñ bàyyi nit ñi di dugg ci transport en commun di jóge ay mbaaw ak ay géejawaay di jàngi ay ay ay. Euh, depuis début bi ñuy euh, ñu ne ñu on est en guerre di ut ay gànnaay ak ñoom seen dem ba ci ndoxteel bi on nous dit finalement dund leen ak virus bi. ah waaw. <laughs> waaw le virus xam nga. on s'est entraîné pour finalement. bañ dem guerre waaw waaw c'est ça. waaw guerre gañ moom boo ko mënee boo ko mënee moytu moo gën xam nga au début maladie bi ñun xamuñu ko ñu ci bari xamuñ ko. Mhm. Chine la jógee liñ ci xamoon mooy euh, na nga set na nga confiné wu bul génn bu rassemblé wu loolu rek lañ ci xamoon donc maladie bi bi muy soog a ñëw Sénégal heureusement d'ailleurs que maladie bi tëbul. ñëw en Afrique ñëw au Sénégal dafa njëkk Chine ñu di leen di xool di leen di observé moo tax président d'ailleurs bi mu njëkkee jël mesure suñu étudiants yi waan ne duñu leen indi moom moo xamoon ne ne contention bi déplacement bi mooy indi feebar parce que virus bi du déplacé boppam nit a koy déplacé jël décision boo xam ne c'était une décision permanente euh, pertinente léegi bi ñu dawal dawal dawal ay weer ñaari weer ñu xam ñu commencé xaw a xam tuuti maladie bi nu muy évoluer ak nu muy contaminé ñu xam ne aussi ah, sa kër président bu jëlee responsable ne toog leen seen kër bu leen génn joxool joxuñu ñu naan joxuñu ñu lekk kenn liggéeyul recette amatul mais économie day daanu ñu xam ne aussi maladie bi jógeeku fi dina fi toogaat ay weer ñu toog suñu kër croisé la wala amuñu luñ lekk amuñu naan économie euh, nerveux ci suñ kaw su ko defee virus bi dootul rey xiif moo ñuy rey ak mar ak ndóol moo tax mu ne bàyyiwuñ de téye leen seen arme mooy na set na ngeen aar seen bopp mais na ngeen yi dund ak maladie bi di dem di ñëw di liggéey mais nangeen di génn quand c'est nécessaire mais na ngeen uti lu ngeen am. quand même parce que man aw ma leen jox. Mhm. na ngeen aar seen bopp pour uti lu ngeen am loolu mooy allègement mesures yi ca ci kanam la jëm. dinañ dem ba lever couvre-feu bi par exemple. jaroon na 1000 milliards yi nga xam ne dañu ko mobiliser sénégalais bu nekk dugal ci loxoom partenaires yi dugal ci seen loxo te anam gi ñu ko joxee ba tey leeralaguñ ñu ko. non 1000 milliards yi boo ko gisee le euh, euh, kii bi euh, personnel soignant bi ci la bokk. le personnel soignant seen équipement ñu ngi koy jàmbat boobu ba tey. waaw xam nga sénégalais day jàmbat toujours. waaw mais jàmbat ak ay fee yoo xamante nga ñun ku la laajoon ne la li <laughs> du benn loolu moom du wax. mais du benn. du wax parce que ñi nga xam ne ñoo nekk boo laajee boo laajee personnel soignant avant maladie bi ci dëkk bi équipement bi ñu amoon ak bi am tey kooku ci laaj. mais bu demee ba bu demee ba professeur Faye dem ci Ziguinchor wax ne amuñu respirateur ci ay appareil respiratoire li ñu ci ay lal li ñu jënd ci ay garab li ñu commandé ci ay aspirine ak yooyu bëri na li ñu ubbi ci centre yoo xam ne ay centre de traitement la bu njëkk ba dakaar rek la amoon am na ba ay Touba am na ba ay Tambacounda am na foofu amu fi woon nañu waxante dëgg xaalis boobu fa la jëm li ñuy héberge ci ay nit ci ay centres yoo xam ne c'est des c'est des c'est des c'est des centres presque c'est des réceptifs di ko fay tous les jours xaalis boobu fa la jëm président bañ na ko ba taxawal comité de suivi boo xam ne ñu ngi koy seetu di ci teg bët. comité de suivi bari coow. non bari ci li nga xam ne moom mooy. indemnité wax non mais nag moom saa ñu waxee nga bëgg ñu ko jiiñ nga bëgg ñu ko teg fii nga xamante ne moom moo am coow li non non coow li fii ñun loo fi créé presse bi loo fi créé dina am coow mais da ngay da ngay maanu da ngay maanu xam nga léegi bi comité bi ñi ci nekk ñoom ñoo génn wax coow li ak wax indemnité bi nga xam ne jur na ci ñoom coow loolu ngeen amplifié ko non non amplifié nga yow ñu la si ñor suñu métier lay wax dama lay wax dëgg waaye yoon ñun sax yenn tay ñu am dossier yoo xam ne mun buñ ko gisee ci dara nag <laughs> léegi léegi comité yi ah. euh, président euh, euh, dafa bëgg leer moo tax mu teg commission boobu soow li nga xam ne am na ci biir commission boobu ça n'a rien à voir avec seen ñoom en général mission yi buñ ko tegee franchement kenn du ci ut payor man je fais partie du dialogue national fay ñu on travaille bénévolement pourquoi ñuy fay quand même les membres du comité de suivi buñ leen fayoon sax man franchement ça ne me dérangerait ku ci bëgg jël ku ci bëgg bëggul bàyyi mais mission principale bi may xaal ci ñoom c'est pas ndax dañuy fay wala duñ fayu mission bi mooy li nga xam ne moo am ñu saytu ko defar rapport askan wi wax xaalis bi fu mu jaar. man lool lay xaar waaw mais en parlant de transparence xadi mi ngi koy wax sànq ne ndaxam comité boobu bu amoon transparence cool yi dina fa jub naam mais man damay dem au delà maître est-ce que itam transparence bi mën nañu ko xaar ba après Covid parce que on parle quand même de mille milliards ak ni koppar yi nga xam ñu ngi koy tudd achat de ah, nangam achat c'est de tourner confiance jusqu'à preuve du contraire buñ la joxoon ay milliards aussi ne la defal lii damay xaar ma nga liggéey ba pare ma saytu ko xool ndax lañu la waxoon def nga ko wala déet mais munuñ rek ne moomet jox nañ ko ay milliards ne sàcc la dugal na ko fii dugal na la fee ca loolu moo fi am Ah, je crois que communauté bi comité bi aussi ay ay nit ñoo fa nekk yoo xam ne ay responsable la confiance n'exclut pas le contrôle hein oui moo tax ñu contrôler mais je crois que il faut leur donner la présomption de bonne foi mooy ñi wax comité de mooy li ñuy liggéey uh-huh. ñu yoree fi di liggéey moi jusqu'à preuve du contraire je leur donne la présomption de bonne foi mais suba li may laaj ñaan communiqué mooy ñu nekk intransigeant très bien par rapport au contrôle loolu rek laay laaj c'est ça man vraiment xam nga yëf yi bu amee da ngeen di dem à l' essentiel da ngeen di dem dans l' essentiel essentiel bi mission bi nga xam ne mun lañ jox comité bi du ndax dañ leen di fay wala du leen fay moo ñu def seen liggéey mhm. seen liggéey mooy dërëm fu mu dugg nga xam ne ñun ñoo ko cotiser nañ ñu wax fa mu dugg bu fekkee ne leeru ñu wax bu fekkee ne ñu ko dugal ñu teg ko ci yoon man loolu laay xaar pour éviter woon coow est ce que doonul gën euh, ay jege ñaaleem ak ay membre ñu bañ a laale ci mbir mi o oh, xam nga man pour man loolu du problème mbokk président muy doomam. et pourtant taawu taawu Abdoulaye Wade c'est un problème buy magam waaw buy magam mun nañ ko jox responsabilité mais on doit être intransigeant. bu defee loo xam ne waru ko def c'est pas parce que mbokki président la ba tax duñ ko jaarale ci yoon nañ ko jaarale ci yoon c'est ça mon problème man. li ma bëggoon mais c'est pas parce que tey mbokki président nga doo am fonction wala duñ la nommer nañ la nommer mais bu fekkee ne nag léegi parce que normalement boo nekkee mbokki président da nga war a am jom buñ la da nga war a fexe. ba kenn du la jam ba kenn du jam ka nga xam ne moom moo la fal fal di sa président de la république da ko war a ormal ormal sa bopp mais parce que yow mbokk président la ñu fal la ngay def lu la neex ne parce que y a l'impunité bu la président sanctionnul suba yéen a fi jógee keneen sanctionné la. c'est voilà pour nekk ba tey ci ci feebar bi Covid 19 gis nañu hydroxychloroquine euh, organisation mondiale de la santé ne nañu ko dakkal France démb la jël dogal bi Sénégal. bokk ci membre OMS ak yeneen i dëkk 800 moom mu bañ maanaam il maintient son protocole bi nga xam ne moom la doon utiliser muy chloroquine loolu ci wàllu yoon lan la ci mën a xaar ndax mën na am ay répercussions wala am na droit bañ ko utiliser. pour man daal président na Sénégal na bañ ba tëdd ci suuf man OM OMS la xaw ma organisation ma maa ngi maa ngi soog nag xaw a gëm tuuti président américain bi lim leen di lim leen di joxoñ non seulement yéex dañ jóg ci feebar bi mais aussi euh, man dama gëm compétence yi docteurs yi Sénégal yi la ñuy liggéey man ñëw ma benn docteur. Mhm. mais docteur yi Sénégal la ñuy liggéey tey dégg naa benn professeur Seydi la je crois nee na ñi gaañu yëpp ci Covid bi kenn gaañuwu ci ndax chloroquine. man loolu laa gëm. Mhm. boof mais quand nit la sénégalais la du jël benn médicament boo xam ne mu ngi koy jox ay nit ñu ciy dee muy continuer di leen ko jox. bu taxawee ne kenn gaañuwu ci ba pare ne tey on a cent guéris man ñoom laa gëm nañ lànk ba tëdd ci suuf. OMS mënul leen dara bu dee loolu la OMS la ñuy yóbbu ci yoon. donc da jàpp ne OMS dafay dafay bëgg nag laal. waaw souveraineté réew yi. waxuma loolu sax pour man dama dafa dama xam ne am na fu muy fu muy fu muy xaw a nu koy waxee ti njuut njaaj njuut njaaj parce que euh, Trump. président américain mi nee ñoom dañuy xaw yiir chinois et tout ça ci bi malaaj di génnee dañ ko doon xaw nëbb ak ñoom et tout ça or le président des États-Unis le plus informé du monde bu leen ko bañ nii rek parce que c'est le président des Américains. Mm-hmm. mais li muy wax doful xam na ko de. bu demee ba léegi nag on di indi ay càmlaka di wax naan ay euh, chloroquine bi dañ ko suspendre ak di ñu ko imposer. Mm-hmm. mais mënuñu imposer dara. Mm-hmm. moi je suis d'accord avec les médecins. et je les soutiens d'ailleurs. ñu desee xëy na bëriwul ñu wax ci état d'urgence bi nga xam ne le 2 juin ci la war a jeex dégg nañu constitutionnaliste bu ci mel ne Ngouda Mboup mu ne le chef de l'État n'avait même pas le droit yokkaat li nga xam ne mooy état d'urgence bi daf ko war a yóbbuwaat assemblée nationale yow loolu lan nga ci lan nga ci xalaat. waaw mais écoute assemblée nationale. même si jox nañu ko. dafa dafa voter loi d'habilitation. waaw loi d'habilitation. jox président de la République. saa yu ko neexee mu jël des mesures par rapport à la situation exceptionnelle que nous vivons et je que loi d'habilitation boobu bi ñu koy wotee dañ ne président de la république mun na jël état d'urgence mun na ko proroger saa yu ko neexee ou il met fin à ça gis nga nañ bàyyi affaire juridisme yi ñuy def xam nga lu ma wax loolu président de la république am na suba suba mu mettre fin au couvre-feu am na droit proroger ko ba l'an deux mille deux ba deux mille vingt ah, vingt et un. ah, ah mais mais est-ce que euh, sañ sañ sañam parce que xam nga euh, booy vivre dans une situation exceptionnelle. li ñuy wax état d'urgence li ma la doon wax mais vous avez donné trop de pouvoir au président de la République. waaw mais c'est la question non non Fatou xam nga man juriste la avocat la. Mhm. je suis militant des droits de l'homme mais réew day def option. nous on a fait une option. d'avoir un régime présidentiel am na sax ñuy wax régime présidentialiste nga d'accord ci ak nga ñàkk ci d'accord loolu moo am pouvoir yi constitution moo ko ko may askan wi moo ko ko may bu amee situation exceptionnelle dafay demande ñu woteel ko loi d'habilitation muy jël ay décisions dans le domaine législatif fi assemblée nationale waroon jël par loi léegi euh, assemblée moo ko ne ñëwal ci sama kër di fiy dogal président di ci dogal mais loolu mais loi moo ko ko moo ko ko may pour ko contester c'est que tu n'es pas un républicain tu n'es pas un juriste. mais effort yooyu yëpp ñu def mettre ay loi d'habilitation ay état d'urgence ay couvre-feu ba maanaam ba noppi moom mu ñëw da euh, daal di jël ay mesures d'assouplissement est-ce que jaroon na kon loolu yëpp. si Mohamed il faut ñu jël ay mesures d'assouplissement mesures yu draconiennes yi ñu jëloon. <laughs> ñaanu ni yàlla continuer di ci dund. dañ ko jëloon parce amuñu woon pexe feebar bi xamuñ kañ lay jeex. ñu jël ko ñu ne woon dañuy def sax confinement total am na ay médecins yoo waxoon président ne ko da ngay def confinement total mais président aussi comme koo xam ne la ku prudent la lu muy def aussi daf koy def pas à pas mu ne nañ def d'abord confinement partiel nañ def couvre-feu nañ tëj Euh, comment dirais-je lieu de rassemblement yi nañ limiter circulation dans les entre les départements et tout ça d'abord pour xool bi ñu ko defee yàlla def na nañ mu mu laajtewaat ñu ne ko feebar bi kat jógu fi lii boo ko yokkee économie bi dafay da dafay ndéer nañ fexe comme dund nañ ak Ebola ñu ngi dund ak paludisme dund nañ ak la lèpre dund nañ ak maladie yu bëri nañ essayer dund ak virus bi noonu di moytu di raxas suñu loxo di bàyyi jaxasoo bi di yemale suñu dem ak suñu dikk mais di uti di jëgaane lu ñu am parce que réew mi attanul di jox ku nekk lu muy dundee. looloo tax mu def allègement yi te ñu ngi jaan yàlla allègement yi jëm ci kanam ñu dem ba lever même mm. couvre-feu bi ñu ngi koy ñaan aussi mais di moytu comme ni nga koy waxee réew ko e antanuñ peut-être en ce moment ñuy gën enrichir ñenn ñi au moment où d'autres ils en ont plus besoin euh, <laughs> <laughs> merci d'être venu c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau merci Khady merci Fatou merci Mohamed c'est un plaisir euh, de me retrouver toujours euh, avec vous mm. c'est un may ñaan yàlla effectivement ni ma commencé woon mbas mi jóge fi ñu koy ñu koy fàttaliku. di ñaan euh, ñëpp am lu jógal ci seen poche. <laughs> <laughs> parce que xam naa soxla soxla askan wi yëpp la. di ñaan vraiment jàmm jàmm am fi xool yi vraiment ñu tàppe leen nit ñi gën a bëggante solidarité bi gën a yokku mhm. feebar bi li nga xam ne moom la ñu jàngat yépp même bu fi demee ñu continuer di def ko am comportement yooyu amiin merci beaucoup di di remercier également Fatou Abdou Ndiaye ak Mouhamed Diop ñoom la ñu ondaloon depuis tout à l'heure di leen di remercier yéen bu baax a baax di leen di jox rendez-vous lundi incha allah euh, ak beneen invité yeneen thème bàyyi leen ak flash d'information bi